Oustaz Assane Seck bu Sen TV nag daal nañ koy placé en garde à vue niki démb ci dimanche bi buy sukkandikoo ci waa Libération buy joxe boobule information di xam xamle ni waa sûreté urbaine bu Dakar ñoo ko daal di interpellé ca euh, Sébikotane ba daal di koy yóbbu ca commissariat central naka noon na ci lañ ko daal di placé en garde à vue moom moomee sax nag ay kàddu yu mu yëkkati woon wax ko ci benn émission télévisée te loolee nak ndaw yi jël ko nag di ko fësal ci tiktok bi loolee nag moo ko yóbbee lu ni mel te kàddu yooyee sax daf ko jëmale ci leader bu Pastef di xam ne ni soit Ousmane Sonko nag dafay nekk candidat daal di gagné élection yi wala sax nag su nekkul candidat dëkk bi nag dana daal di tàkk loole nag moo ko yóbbee lu ni mel.